salaamaaleykum gars yi dañuy nuyu ñëpp ah di share ñëpp suñu mbokk ñuy suivre YouTube bi WhatsApp bi ñëpp dañuy nuyu ñëpp di share ñëpp ñaan ñëpp jàmm c'est King Ouse Diop et Ngary Ka dañu ñëwaat tey ci benn revue de la presse tey jii 19 bàyyi sama waa ji mu nuyoog gars yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar ñu door revue de la presse yi bàyyi nag ci sa wew tànk ñu dooree ko ci record yéene kaay. moom nee na Nampalys Mendy tout proche de la tanière. moom mii kat kii di Nampalys Mendy kii kat jóge na lool ñëw fan ci équipe nationale bu Sénégal ndax moom ak Aliou Cissé jubóo nañ ci kàddu daal ba mel na ni daal cinquième journée qualification mooñ euh, coupe. Euh, coupe d' Afrique mille vingt deux moom mii kat mën na am Aliou Cissé woo ko waaye tamit gone ak Sénégal gii di Moustapha Nem nekk fële ca Paris FC moom mii kat nee na géntam moo di woon lan suyee équipe am na ko mel ni géntam nangu na waaye bu ñu xoolee classement FIFA Sénégal kat ma ngay wéy di des ci bopp bi ba léegi fii ci Afrique de. moo ko jiite Sénégal moo jiitu fii ci Afrique. jóge Sénégal dem Espagne wàcc ci Madrid dem fekk fa bii di As moom nee na à la conquête du trône. kii di Kylian Mbappé ak kii di eh, Erling Haaland la fësal nag nee ñaar ñi est-ce dàq football ci monde bi jamono bi ñaari gone yi mu mel ni ñoom ñaar kat ay morom lañ daanaka ndax kii di Kylian Mbappé 22 ans la am kii di Haaland am 21 ans mu mel ni kon ña ngay wane seen bopp waaye ñoom ñaar ñëpp kii di Real de Madrid mu ngi leen di may gët nag di leen bàyyi xel bu baax a baax waaye ñoom ñaar ñëpp dinañ seer de waaye nag Real Madrid moom kenn moom xam naa ne moom. pour mu jënd ko du jafe muy Erling Haaland waaye kii di Kylian Mbappé moom ay yëfam dafa jafe lool waaye kii di Marcos Llorente moom mii kat ma ngay wéy di wane boppam ca Liga ba ndax bu ñu xoolee moyenne daal manaam ka fa ëpp ay moyenne ci Liga ba moom la moom dugal na juróom-ñetti bii def sept passes décisives moom kii di Marcos Llorente waaye ñii di waa Barcelone xam nañ xelli ne ñoom ñii kat dem fële ca Paris Saint-Germain jël fa ndam dina jafe lool waaye lenn képp lañ lan muy qualifié ci Coupe du Roi bi duma da ngay jógee as dem seet biir El Bernabéu moom tamit ba léegi mu ngi Mbappé ak Haaland. Mbappé ak Erling Haaland la ne de ñaar dañoo wéy rek des ci journaux yi rek des ci Europe yi di jommal ñëpp nee na nag ñaar ñii ñëpp Real de Madrid daa bëggoon ñu joué fële ca Real ca Real de Madrid waaye loolu xam nañ ne du mën a nekk ndax feebar bi fi jot a jaar waaye bëgg nañ daal kenn ci ñoom. 2022 mu joué fële ci Real de Madrid muy Mbappé wala Haaland waaye tamit daal ñaar ñooñu ña ngay wëy di jommal àdduna nag ñoom ñaar ñooñu de waaye. boo xoolee jour bi passé li di champion bi. Mhm. dañoo wane seen bopp suul Messi ak Ronaldo. waaw feeñatuñu Messi Ronaldo gone yi nëbb nañ leen. dugal 3 bi. Haaland dugal ñaar Haaland dugal 2 bi. Mbappé Ronaldo 0 Messi 0. waaw dañuy jógee Madrid ah, dem Séville fekk bii de Estadio Deportivo. moom nee na ils ñii di waa Betis fi ñoo fa nekk de lenn képp lañ bëgg dem Europe waaye nag kii di Guido Rodriguez moom moo jël kàddu di wax nee na nag bu ñu bëggee dem fële ci Europe wala ñu jege ko lool il faut ñu duma xetaafe ñun ñoo leen di dalal fii ci fii ci Benito Villamarín foofu lañ leen di dalal nee na naam stade ba du am nit sax waaye dinañ def la tout ngir am ndam ca loolee waaye kii di mun Monchi xam nga moo yor Séville moom mi mooy seen mooy seen tuddee waaw directeur sportif moom mii kat lenn képp la bëgg gone jii di xafi galaan galaan moom la bëgg a jënd waaye gone ga seerul de huit millions rek lay jar de. ma nga sax Huesca. Huesca la nekk waaw la càmmoñ la. gauche bu baax sax nee na moom mii la bëgg nag ngir dollil ko kay di Julián Lopité gi. jógee Séville dem Pays Basque. fekk fa Gipuzkoa fekk fa Mundo Deportivo. Gipuzkoa la ñuy seeti de. moom nee na cauchemar lu bon a bon moo am fan fële tourain Turin ndax Real Sociedad moo fa dalaloon kii di Manchester United waaye duma lañ ko def duma yu mitti ay contre yu gaaw lañ ko def waa Real Sociedad nag ñoom xam nañ ne ñoom mënatuñoo qualifié lenn képp lañ bëgg léegi jéem ko rafetal rek te jéem sàmm seen liga bi waaye qualifié moom mënatuñ ko def. bu ñu jógee Gipuzkoa dem wàcc Barça fekk ba bii di uh, Mundo Deportivo mu ne la 1 x Masia. waaw moom mii kat nee na un x un Martial li ko waral mooy ñii di waa Barcelone kat ña ngay jeqi na ca gone ya Roura ak kii di kan Altimira ñoo ne ca gone ya di leen sàmm nee nañu nag Barcelone léegi nag jiix ci xale yi maanaam ca centre formation ba daal xool gone yi ndax ba ñu xoolee gis nañ ne kii di Ansu ñëw na te ma ngay wane boppam bu baax te foofa la jógee ak kii di kan Ricky Puig moom ma ngay wane boppam ak kii di Mingueza ak muri ba xam nga ñooñu ñu ngay jogante ca Barça nee na nag gone yi bu ñu leen sàmmee am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fi mooy ëllëgug Barça gone yii mën nañ koo yor waaye ñii di waa Villarreal may nañu ndam waa Espagne ak ñii di Getafe ndax ñoom am nañu ndam Xetafe dafa dóor kan Naples. Grenada Grenada mu ah sax maa ngi juum Grenada moo dóor Naples. kii di Villarreal it dafa am ndam. mu mel ni boo xoolee barki démb. Séville dafa daanu. Barcelone daanu Real Sociedad daanu kon ñaari équipe bu Espagne yooyu rek ñoo am ndam muy Granada ak Villa ak kii. ak euh, Naples. Villarreal Villarreal ak Granada. waaw ñoo am ndam. ba léegi Barça dañuy jógee Mundo Deportivo dem seeti bii di sport. comme ni Luis Suarez onze millions d'euros. nee na kii di Luis Suarez kat ñii di waa Atlético onze millions d'euros kese lañ ci bëgg waaye la ko waral mooy nag ba ko ko Barça di jaay dafa am sart yoo xamante ni tegaloon na ko ko mu mel ni kii di Atlético jot naa jox Barcelone lu tolloog cinq million d'euros ndax bit ya mu dugal ak match ya mu def moo ko waral waaye tamit bu ñu xoolee kii di Atlético de Madrid bu qualifié lii di quart de finale day joxaat Barcelone xaalis bu ñaari million d'euros bu léegi nag bu ñu demee ba saison bu jeex bu dee dafa bëgg mu toog Atlético de Madrid day mottali ba mu mat onze millions rek ñoom ñu moom ko waaye ñii di wax Barcelone lenn képp lañ bëgg muy lan am ay ndam ci Liga bi gën a dëgëral seen taxawaay match bu ñu am rek fexe jéem caa am ndam ngir seen taxawaay gën a mën a dëgër ci Liga bi. dañuy jógee sport dem seeti biir le sportivo catalan moom nee na beaucoup à waa nee na war nañoo deferaat lu baree baree bare ginnaaw bi ñu daanoo seen kanam ak ba ak Paris Saint-Germain waa Barcelone yi nee nañ am nañ ay jafe-jafe lool nag ndax defet boobu dafa leen jaxase lool lool lool waaye lenn képp nag moo leen jaaxal muy mbiru Lionel Messi mbiru Messi moom jaaxal na leen lool lool ndax kii di Messi xamuñu day dem xamuñu day toog mu mel ni daal jaxase na seen xel lool moom Lionel Messi te boo xoolee xaalis ba muy fayeeku bari na lool loolu daal jaaxal na leen. dañuy jógee Espagne ah, dem Italie wàcc Rome fekk fa bii de Corriere de la sport moom nee na seul Fonseca rii. nee na kenn képp moo fa reetaan muy Fonseca mii ndax bu ñu xoolee ñeenti match ca Europe maanaam Ligue des champions Ligue Europa ña am ndam kenn képp la muy Fonseca mii ndax Juve dafa daanu ak ñeneen ñoom ñëpp ñoom Naples waaye kii di Gattuso moom mer na ba fëttu ndax daal démb erreur yi bëri woon na lool ci jogante bi doon am ci diggante Granada ak kii di Naples bu Kalidou Koulibaly dañ leen dóor ñaari bal ci dara waaye kii di Prandelli moom ma ngay wax de nee na lenn képp laa bëgg man ak samay joueur ak samay ñëpp daal. ndam képp ndam loolee nag pour ñu am ko il faut ñu mer xiif ndam lool ngir ñu mën a am ndam. Roma de autoritrein Touré fekk fa bii di Tuttosport wane la juge jugé. waaw ñi ne kii di Juventus de Turin daal gaa yaa ngi koy commencé àtte nag di ko xool ay mbiram ndax match bu bon bi nga xamante ni def nañ ko waaye kan kenn du kii di Bentancur moom mii kat match bu bon a bon a bon la def ndax erreur yi sax moom ci moom la jógee bit bu njëkk ba ci moom la jógee waaye kii di Pirlo nag moom ba mu match ba jeexee dem na ca gaa ya nag téye leen wax ak ñoom waaye nag ma ngay continuer di wéy di liggéey waaye kii di Bonucci moom xam la ne ne moom dafa blessé woon xam nga waaye kii di Chiellini da koo feelu ndax dina toog lu toll 15 jours du jongante moom kii di di Chiellini waaye Chiesa rek moo dox. waaw kii di Chiesa kese moo wane boppam keroog ca match ba. dañuy jógee Turin dem euh, Quotidiano Sport TV moom nee na. c'est un Milan à étoile. nee na Milan mii kat démb xàmmewuñ ko ndax Milan wu benn étoile donc la moom mii di Milan démb dafa mëne woon gars yi def 2 ñu dem ba ci cëppaandaw ga mu def 2-2 match ba jeex match nul la def de moom mii di Milan waaye fële ci AS Rome kii di Edin Dzeko moom ñëwaat na waaye dafa départ dugal na tamit waaye ñii di waa Naples tamit dañoo daanu fële ca Granada mu mel ni kii di Eriksen ak Vidal kii di Antonio Conte daal xamagul ñoom ñaar kan la ciy départ lo ci derby bi war a am dimanche mu mel ni kii di Sansi tamit dafa blessé du bokk ca derby bi moom Sansi ñu wéy la jugee QS dem Milan fa lañ jeexle ah fekk bi di Gazzetta dello Sport moom ñu ne comment le sur le Milan Pioli manque. nee ñii di waa Milan nan lañu war a waajalee derby bi ndax derby bi derby bu doy doy doy waar la la ko waral mooy ñii di waa Milan ak ñii di waa Inter la dox seen diggante bariwul te kenn ku nekk xam na ni derby bu mitti lay doon fële ca Italie. Inter jiitu. Mhm. topp ci Milan AC topp ci Milan AC. su Inter dóoree. Mhm. mu daan dóoree. raw ko dab hmm. raw ko. waaw mu mel ni kon derbi ba dina diis lool ci ñoom ñaar ñëpp waaye kii di eh, Benacer moom mii kat blessé waat na de waaye Pioli nag bañ ko waxee mu ne ah blessé na waaye man am naa ñeneen ñu fi nekk de ndax sama équipe bi am na gone yu baax waaye kii di Eriksen nag ña ngay xool ak nuñ koy boole ak Marcelo Brozovic ci ca milieu terrain ba ndax gis nañ ne daal ñoom ñaar ñi buñ leen boolee ci la Eriksen di gën a dox moom mii di Eriksen doomu daan wala Danemark mu mel ni kon derby ba dana neex de. loolu loolu dimanche la. fii la jamono waaw ñu ngi leen di jaajëfal dee leen dem leen ngeen abonné ji ci YouTube bi ngeen. abonné leen. Mhm. aimé vidéo bi. Mhm. bés close notification bi. ngeen mën nu jàppale ko ñu mën def yeneen vidéo yi gën a bari. waaw King la ak Ngary Ka toujours ñu ngi fi. amul dem amul taay ñu ngi ñëw chaque jour ñu fi ak yéen incha allah. merci merci à tous.